wax ni ñaari at yi ngi nii ñuy dund lu metti eh, te li ko waral mooy àddina bi yëpp dafa yëngatu te li ko yëngal mooy ñaari mbir benn bi mooy euh, lépp loo nga xam ni mooy li xew ci climat bi xam nga tey bu ngeen seetloo ci àddina bi fitna yu bari mi ngi xewee ci ay dëkk yu mel ne Canada ay dëkk yu mel ne Russie ay dëkk yu mel ne États-Unis yooyu dëkk yu mel ne ay Argentine yoo xam ni euh, nawet bi jaaxal na leen loolu waaye itam mbooyoon na fi mbooyu yu méttee métti bi nga xam ni tool yu bari dañ fa jaare am rendement yu néew ñaareel ba mooy Covid. Covid bi moom euh, amaana li mu yàq itam bari na bari na ndaxte bu ngeen ko seetloo li nga xam ni moo doon gaal yi nga xam ni sax ñoo daan ñëw ci Afrique néew na tey gaal yi fi sawar a ñëw ndaxte dañu am beneen i pexe dem asi moo leen gënal fépp di ñëw Sénégal moo tax tey pour nga am blé buy ñëw même Sénégal. amaana du yombul torop te bi nga xamee ne gis nañ ñu fi blé bi toll jàpp nañ ni tey pexe amul pexe bi mooy li nga xamee ni mooy blé bi nga xam ni moo doon jaar cent quarante tey faw mu jaar yegg deux cent par tonne loolu moom mooy tax maanaam liggéey bi nga xam ni moom la meunier yi nekkee yàlla muñ ñi sutural léegi nag li nga xamee ni moom la ñu jàpp mooy kenn mënul néewal li nga xam ni moom la état bi jot a def bu ngeen ko fàttalikoo bi ñu duggee ci mois de février état bi mu gisee ni mbir mi tar na dafa wàññi ci TVA bi jëlee ko dix huit pour cent indi ko six pour cent waaye nag fekk na ni ñun si suñu bopp euh, jàppoon nañ ni amoon nañ ci itam wàll ñu wàññi ca waxtu ba maanaam li nga xam ni moom lañ daan mën a am maanaam ci ca li ñu liggéey ñu néewal ko bàyyi ko waaye comme nag cours du blé dafa yokk yokk bu tar maanaam jóge fi nga xam ni moo doon deux cent soixante-dix tey mu yegg si trois cent euros par tonne amaana fi mu toll nii unité meunière yi mënatuñu liggéey te bu ngeen seetloo unité meunière yi tey bu ñu xaymaa li nga xam ni mooy ñi nga xam ni ñoo yëngatu ci biir liggéey bi maanaam seen employé direct toll nañu lu tolloog mille employé boo seetloo nag ñi nga xam ni yëpp ñoo yëngu maanaam ci boor bi ñi nga xam ni Euh, seen liggéey mi ngi mi ngi sësu ci liggéey meunier yi mën nañ ko xayma ci quinze mille employés aujourd'hui donc li nga xam ni mooy suñu suñu mbébét mooy góor-góorlu ba liggéey yooyu yëpp ñu mën leen téye te nag faw pour ñu mën ko téye maanaam ñu yokk njëg bi yokk ko foo xam ni dina tax usines yi bañ a tëj tey nag buñ ko xaymaa tollu na ci dix-huit mille cinq cents te nag li ñu leen di leeral mooy prix boobu ñuy wax ni mooy dix huit cinq cent du loo xamee ni fii la rek la xewee xew na fii ci Côte d'Ivoire xew na fële ci Europe fépp foo xam ni nit ñi ngi ñu ngi yëngatu ci wàllu blé amuñu pexe dañu obligé yokk seen mbir pour topp jafe-jafe yi nga xam ni moo nekk ci liggéeyu euh, farine ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Thank you.